xam ngeen biñ ko nee ñëwal ñu débat dafa dem làqatu ñetti fan ñeenti fan ba ñu ne CNRA nee na d'accordul ci débat bi mu dëgg a génn ne d'accord naa débat ak Sonko loolu mooy mbirum bu dëgg ak ngërëm na leen yéen ñi nga xam ne yéenee safoo chaîne bi di Buzz Actu 221 daanaka ñaari premier ministre ñu ngi àddu bu baax a baax di ku nekk di sànni sa morom li nga xam ni moo di moom mi fi nekkoon ex ministre di wéeturu Amadou Ba ak ki nga ni jamono guñ toll ni moo fi nekk ministre di wéeturu Ousmane Sonko nekk njiitalu Pastef les Patriotes ginnaaw bi nga xamee moom Amadou Ba yëkkati na na yëkkati na ay kaddu moom Ousmane Sonko daal dina koy weddi ba tëdd ca naaj ba daal di xamee lu may ñaari rapport daal dinañ koy épingle te du yàgg dara dañ ko daal di publier loole sax daal di xamle moom Amadou Ba mën nañ ne Ousmane Sonko daal di xamle bu baax a baax li ñuy moom moo ko a xam te na bu baax lu ñu daal di wax waaye nag Ousmane Sonko weddi Amadou Ba ba tëdd ci naaj bi na ko nga xam ni moo di débat public moom mu daal di koy daw nga xam ni général daal di fësal ne loolee yoon ba tax na a génn daal di accepté boobu le débat ginnaaw ah, foofee ca Mbour mën nañ ne meeting bi nga xam ni Pastef doon na bi leen di Ousmane Sonko ci la daal di yëkkati ay kàddu xamle kàddu yu daal di am solo jiital ko ci tedd liste bu liste coalition jàmm ak njëriñ bi leen kii di Amadou Ba daal koy jiite moom nag daal di xamle kii di Amadou Ba nekk na ki nga xam ne bu taxawee ne moom kenn kenn mën kaa épingle nekk na ki nga xam ne kenn dootu ko mën a jàpp ci dara ndax moom mi ku ku nekk ku jubla ku set la loolee daal di moom Ousmane daal di koy weddi daal di xamle bu baax a baax di yàgg dara dinañ xam ne ni moom ay ay rapport dañ ko daal di épingle nakat xam ni mën nañ ne lu mel ni am na ci ñaar yi nga xam ne daal nañ na koy topp bu mel ni cour de contrôle waaye tamit daal di Ousmane Sonko weddi kàddu gi nga xam moo di Amadou Ba ba tëdd ci moom mi nga xam ne moo l' économie des finances et du budget et du plan daal di nekk tamit jamono nga xam moo di ex premier ministre moom la mën ba moo di Amadou Ba ci loolee rapport bi nga xam ni inspection générale d' di IGE mën nañ ne ak bi nga xam ne moo di deuxième rapport bi la nekk ci coow lu jëm ci wàllum lii di 94 milliards yooyu la te du te du yàgg dara di ngeen xam ni ndax kat fu nga xam ne moo di Ousmane Sonko yëkkatee ay kaddu noonee ki nga xam ne moo di Barthélémy Dias daal di yëkkati ay kaddu jëmale waaye tamit ki nga xam moo di Fadilou Keita daal di koy tontu mu nekk ay actes yi nga xam ni kon jamono guñ toon yi ngi gis bu baax a baax ci boobu jamono mu nekk lu daal di am solo ci langue politique bi lee ci ginnaaw a am ba am ginnaaw la lañ gis ni Khalifa Sall Abbas Sall mu nekk ay actes yi xam ni lu daal am solo la ndax kat lii dee nekk dina tax dina tax débat public daal di génn bu baax a baax dina tax kenn ku nekk ci ñi nga xam ne ñoo war a tànn candidat yi ñu xam bu baax ñiy wax dëgg ak ñi nga xam ni dañuy daal di wax la ko sudul noonu lu mën a am ba am bu leen di fàtte abonné ci Buzz